Heavyweights.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 nee ab jigéen bu nekk ca bitim réew ca France moo accusé magam bii di Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass ne daa sàcc ay parfum yoo xam ne boo ko doon xayma toll na ci ñetti millions ndaw si yemul ci lolu dal di dem ci réseaux sociaux yi wili pande Gris Bordeaux yàq deram bi loolu amee na la rakk ji di Gris Bordeaux dal di riposté dal ndaw si de mort teg ci daggal koy saaga ndey difaare ko ko ba muy bëgg a ñu naan déetawaay mu dal di koy difaame dal di koy sosal ndaw say wax de bi loolu amee na ci la dal di porte plainte gride bi mu porte plainte gride gannaaw ba police nationale jeexalee enquête bi ci la ñu transmettre dossier bi parquet naka noonu ci la procureur ordonné ñu woo gride ci la ko division spéciale bu cybersécurité dal di convoqué bi gride yooyu yegsee rek ma ne ci la ko teg loxo dal di koy defeere ay mbër yi jóg leen mbir moomu sax nga xam ni ci la ñu woon magam bii di Gris Bordeaux ci wàllum sàccum parfum moom ndayi mbi ligi di Gris Bordeaux ci boppam déposé woon na plainte ca DSC moo tax ma ne ñoom Balla Gaye Modou Lo Bekaay Mbay jóg leen moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax imaam bu lu bugaan ba nekk ca cité kër góor gi boo wattuwul daan ci teg loxo ndax nee ñu dafa am ab contentieux bu doxoon ci diggante la banque agricole ex caisse nationale de crédit agricole CNCAS ak société Bougane bii di wuyoo ci turu Boyg Solution System Limited bi contentieux boobu amee na le tribunal de commerce dal di ordonné ñu càmbar immeuble ba ba fi mu ne sax yebal nañ fa ab expert immobilier buy wuyoo turu MA Thiam ngir mu xayma valeuru kër gi na mu toll ma ne leen Bougane de làmmiñam nekkul ci poosam moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax la xew ca Bambay romb na doy waar am néew yow benn élève la ñu fekk ci ab teen mu nekk ci état décomposition bu doy waar ëskëy élève bi mu ngi wuyoo ci turu Ajeng doon jàngee ca école coranique Al Azhar moom daal dafa réer depuis samedi bi weesu ay mbokkam wër ko fu ne waaye fi ñu ko mu gisee moo doy waar ndax altine bi weesu ci booru 16 heures gis néewam ci ab benn teen boo xam ne ma nga nekk ci ab village bu ñu naan ñokkeet bu Ngongom néew bi tamit bi ñu koy gis rekk nañ ko ci état bi nga xam ni jéggi na dayo ba autopsie mujjul am procureur sax daal di jël ay décision yi nga xam ni mooy ñu mujjee rob xale bi san autopsie fi mu ne ubbi nañ ci ab l'enquête waaye ma ne nag xale bi lu ko fa dugal lan moo fa dugal xale bi fay mim réew mu doonoon seen xibaaru bës di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës